laaj bi mooy est que gëm dana mat bu fekkee yàlla yàlla kese nga gëm boole woo ci yonent bi ashhadu mhm. mhm. boo gëmee yàlla te gëmoo yonent bi doo jullit doo mhm. ngay gëm yàlla gëm yonent bi waxuma ah? yow yàlla wax ni waaw yow góor waaye yow mii yaa baax jërëjëf jëf <laughs> a saay saay yow mii loolu moo wax dëgg la ah. loo yàlla yàlla moom la ñuy gëm mais yonent dañ koy dëggal loolu moo wax dëgg la lii kii xale bi wax loolu lay dëgg gëm yàlla waaye bu neexee mu bañ a gëm yonent bi day déglu rek déglu rek bul yàq waxi jàmbur bul yokk waxi jàmbur damay laaj waaw léegi daal hmm. gëm na ne yàlla am na hmm. gëm na ne yonent bi yàllaa ko yónni hmm. jeex na dëggal na yonent bi gëm na yàlla dangay ngay dëggal yonent waaye doo ko gëm amana rasul jàngoo ko waaw demal waaw jeex na jeex na jeex na saay-saay la waaye nag am na loo xam tuuti <laughs> gis nga yàlla nit ñi dañoo ràññewul ba am na wax yoo xam ne boo ko waxee sax man ngaa am problème ci réew mm-hmm. mais yàlla la nuy gëm yonent ñu dëggal ko nangu ne yàllaa ko yónni mm-hmm. nga gëm li mu li mu yore parce que li mu yore yàllaa ko moom mm-hmm. xam nga nga nangu loolu waaye nag eh, ku gëm yàlla di gëmoo yonent moom loolu lu mu wax waaw. est-ce que dinañu ñaan yonent bi yonent bi kenn du ko ñaan yonent bi amul lu maye hmm. yàlla am lu muy maye danañ ñaan yàlla nag ci daraje yonent bi wala ci barke yonent bi hmm. wala ci tedd bi hmm. wala ci tabe yonent bi danañ ci ñaan yàlla ne ko sa yonent boobu nga bind ci ci darajaam defal ñu nangam man ngaa ñaan ci daraje yi yonent yàlla Muhammad waaye mënoo ñaan nag ne yonent bi may ma nangam loolu kenn du ko wax yaa xam nga ne du la ko may da ko am parce que mm-hmm. xam nga lu tax mm-hmm. parce que moom mu ngi soxlu yu bëri mm-hmm. yu fajuwul mu ngi soxla yu bëri yu fajuwul kon yàlla mooy maye yenent bi nag lépp lu yàlla joxe moom la koy jox mu seddale ko lu yàlla joxe rek moom la koy jox waaw yàlla man lay jox may séddale yàlla joxe ko kon bi waaye yenent bi yenent bi lu tax yàlla ne ko innaka laa tahdi man ahbabta wala ki na laa yahdi man doo jubal ku la neex may jubal ku ma neex waaw ci boobu bàyyam aboo taalib la mm-hmm. mu ne mu bëgg mu jub mm-hmm. mu ne ko bàyyi ko kii du dugg ci lislaam man lislaam maa ko moom mm-hmm. diine ji maa moom maliki yow mi diini ku neex mu ci du yow xam nga loola war yow yonent bi wa maa ala rasul ilal balaaxul mubiin wooteel waaye na leer nag bu lëmas dara na leer nañ loolu la ko wax ne ko waaye innaka laa tahdi man ahbabta walakinna laa yahdi man yashaa yàlla muy jubal ko neex kon yonent bi duñ ko ñaan yonent bi duñ ko gëm dañ koy dëggal da ngay dëggal ne yàllaa ko yónni ok gëm nag yàlla yàlla nag boo ko gëmee pour nga mën koo jëriñoo dañ koy ko wóolu du sotti da ngay gëm yàlla wóolu yàlla waaye gëm naa yàlla waaye wóoluwuma sama mbir yi dana dana yàqu sama nangam dañ may dàq booba ah, boobaa yaa cay des waaye doo gëmee yàlla wóolu yàlla dara du xew da gëm yàlla wóolu yàlla waaw gëmal yàlla wóolu yàlla waaye daal kuy dugg ci lislaam da naan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa muhammadan abduhu wa seede la anna muhammadan rasulullah loolu ngay seede seedeel ne yàllaa ko yónni seede ne yàlla muy buur bi mm-hmm. gis ashadu an laa ilaha illallah mm-hmm. foofu nga wax mm-hmm. ashadu anna muhammadan rasulullah <laughs> <laughs> loolu la kii da seede yàllaa ko yónni kii nga seede ne mooy yàlla loolu mu wax muy dëgg nee na gëm naa ne yónenti bi yàllaa ko yónni yàllaa ko jox lim ko jox gëm naa ko nangu naa ko waaye nag gëwuma ne yàlla laa gëm mooy dëgg boo gëmee yonent bi bokkaale mm-hmm. yàlla la ñuy gëm mm-hmm. yàlla ngay gëm dëggal yonent bi mm-hmm. sopp sëriñ bi gëmal yàlla dëggalal yonent soppal sëriñ teral sa ndey ak sa bàyyi jeex na kon ñi nga xamante ne ñoo ko ci mere woon ci wax jooju jarul ñu ko ci mere non non euh, loolu yëpp euh, ñàkk dégg wax rek la ko waxee euh, xam nga dafa wax wax moom euh, dañ koy dégg mm-hmm. incompréhension baaxul mm-hmm. ti ñun Sénégal li ñu yàq bu ñu wax euh, dikkalee mm-hmm. du ñu seet lay vrai ba dañuy seet lañu ca neex rek wala nañ la bañee waaye nag wax du du noonu nañ ko seet ñi ñi ñi ko weddi woon daal nañ dëggal ko xam ne daal yàlla lañuy ñuy gëm yonent bi la ñuy dëggal waaye sëriñ la ñuy sopp. boobu ñuy dëggal macha allah mu mel ni fii ñaari fan incha allahu taala ñett danañ dugg ci weeram weer wi mu gane woon jamono mu mel na bu weer wi tàmbalee rek buurtu tàmbali taxawaayu buurtu ci gàmmu ak taxawaayu gàmmu ci lislaam waaw buurtu de moom alaaji Malick taalifoo mu ne bërit nag ñaqatooy xëpp wér nag motax way woowu genn wàll gi la la Buseyri wax genn wàll gi yonent bi wax yonent bi du way kumuy way yàlla wara way tu yàlla ken du ko way way ci xol lay dugul wa dugg waaw ma yan baxee la woo yonent bi du way mune nak fa mablaxul ilmi fihi annahu basharun dayoo xam-xam dal deug deug deug ci yonent bi neel mbindeef la xam-xam jeex na jeex na di lu waxati xamatu lu cay teg waaw mhm. yeneen bi nañ ñoxeet li ko annahu fi muhammad mhm. xayru mhm. moo gën ci mbindeefi yàlla kullihi moo leen gën foofu sew am na fa kon yonent bi des na ko gis ah moom mooy gis <laughs> waaye ko noonu rek ci dugg <laughs> ndax Sénégal dañoo naqari de rek dañoo gis yeneen bi nene kugis ku gis nitu yàlla jàppal ne moom nga gis ci moom et sëñ Babacar ñu koy gis sëñ Touba ñu koy gis sëñ Fall ñu koy gis di gis mag ñooñu bu sa degar da ci yegg bu sa degar yeggul doo ko gis da ngay yegg ci cofeel bu raxul dara bu sa cofeel raxee nag doo ko gis waaye cofeel bu raxul dara dara dara dara lépp di yenent bi Abusayri oh co jam gis nga kooku mm-hmm. dafa dem ba dof ci yonent bi dafa jaxasoog deretam ak mm-hmm. yàppam ak mm-hmm. xelam ak xalaat léppam yonent bi li mu li mu woy li mu woy bari na di ñaar rek a ci feeñ am see ak burdu mais li mu woy taalif yonent bi kenn xamul nu mu toll ay ñaar yooyu ci feeñ am na bés mu ne damay dem ci yenent bi seeti ko waaye nag tagg na yenent bi tagg woo xam ne da ko ko doon woy su demee ba ci raw doom mu woy ko foofu yenent bi feeñu mag ñi ne leen bu say yi dana fi ñëw suba su yeg yegsee ci man bu bu taggee yéen bu ma taggee rek ma dekk bu may tagg may dekk te ma dekk àdduna tukki fexe leen ba bom mu yegg si man ñu ba ñu xëyee ñu wër dëkk bi ne di ko seet seen ku muy lëfër lëfër yi ñëw laa ilaha illallah naan lëfër dara faalewul yére mm-hmm. faalewul dàll faalewul mbaxana faalewul mbubb faalewul dara dara yonent bi rek mm-hmm. muy lëfër lëfër rek ba yegg si mag ñi ne na nga def muy maa fi rek ah waaw ñun de yow lañu soxla woon foo jëm nii mu ne ci suuf si sallallahu alayhi wa ci sallallahu alayhi wa